salaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu leen ziar di wax ne yéen ñuy suivi si Wassare Lamb kon ñu koy defee rek à chaque fois tey nag ñu ñëw fii ah, nekk koo xam ni kenn dootu ko présenté kenn muy xale boo xamante ni macha allah ci victoire la jógee mais nag gëj nañ koo gis mu bëri ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy lamb ak ci li nga xamante ni moom mooy carrière dañ koy bàyyi bu nuyoo ah, billah bismillah inna waliyallah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal suma waajur bu jigéen yàgg fi lool te wet di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des di ñaanal aussi suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fi di ñëpp di ñaanal aussi suma xarit suma lépp muy Assane Diop ñu naan papa yàdda suñu borom yërëm ko te xaare ko aljana waaw di ko ñaanal aussi bépp mbokku jullit rek. Euh, Papa Yade ñu leen koy jaale yow rawatina yow parce que jël naa ko interview mu yor si yow lu nice doom dangu la mais bala euh, sa relation ak Papa Yade mu demee woon. waa relation la mag ak rak relation la mbokk ak mbokk relation la ak jullit ak jullit ak doomu aadama ak doomu aadama mais daal li ma mën a wax daal ci moom mooy. suma rakk la woon te suma xarit la woon xam nga rakk mën naa bañ a nekk sa xarit mm-hmm. mais suma rakk la woon suma xarit la woon dafa amoon cofeel boo xam ne dafa nekkoon suma diggante man ak moom te loolu maanaam suñu boroom rek moo ko xam. Mm-hmm. moom accident bi nan la déroulé. xam nga accident moom comme ni ñu koy waxee rek accident la quoi yoroon na deux di dawal xam nga am benn tracteur bu ñu paanoon bu gaaree woon ci suufu te ngéej bi. xam par la suite guddi gi foofu amul lampe bon mu mu daw daal ba dal ci. noonu la demee mbiru suñu borom la rek quoi. Mhm. loolu am solo la parce que tamit sañ noo waxtaan ak yow te ñu la jaale Papa Yade te tamit wax dëgg yàlla nekkoon na koo xam te même ñun ñii suñuy xarit la surtout man dañ doon tooyante fu nekk laa ko doon déplacé muy ñëw ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko jaale sa mbokk euh, doomu daangu tey comme naan kan mooy doomu daangu parce que mën nañoo xam ne àdduna xam nañ la euh, ñi lay seetaan sur Wassare Lamb xam nañ la euh, doomu daan ban année nga dugg ci lamb man maa ngi dugg ci lamb en deux mille deux mille dix ah deux mille dix laa dugg ci lamb Mm-hmm. avant lutte avec mbër yëpp niñ koy defee mbapat ah parce que man dama doon jàng xam naa sori sax lool si jàngee man maa ngi bàyyi terminal foofu laa bàyyee quoi mais boobu boo dëkkee si quartier Lébu da ngay am habitude cest saa dire bëri cosaan la fay nekk. ñu doon fawee làmb aussi xam nga ba bi ñuy def seconde après si lañu ñu am combat lutte avec frappe te yàlla def aussi ñu dugg ci mu. ñu am si réussite par la suite après si lañ commencé nag loolu moo ñu ci boole ko mais quant à moom fépp daan làmba daan am tëngéej wala dëkku lébu yi rek dem nañ fa bëri. Mhm. papa daan nañ ñun ñëpp suñu biir parce que loolu amu fi woon quoi mën nañu wax ne làmbu tëngéej si Mbapat comme nawetaan la woon rek quoi peut-être ko ñun am na ñoo xam ne da ngay bokk ak ñoom quartier sax daan bëri ak ñoom quoi plaisir lañ ko defoon parce que ñun sañu vendredi samedi dimanche. làmb lañ xamoon xamuñu woon ay soirée yi xamuñu woon loolu parce que chaque vendredi samedi dimanche dafa am benn koñ boo xam ne daan tëgg làmb te ñun aussi dañ daan fa dem di di bëre. Mhm. léegi kon nga bu baax a xam nga comme niñ koy waxee rek des fois saabu du fóot boppam. mais li ma la wax daal ci Tëngéej man avant may bëre aren waa Tëngéej xam nañ ma mhm. waaw donc am na lu ma fi wane daal. bëri nga ñoo xamante ne dëkku dëkkuñu Tëngéej ñoo xamante ne instant soit ñu raw la ñàkk laa raw. waaw am na mais xam nga bon boo xoolee dix ans dafay yàgg. Mhm. des fois man nga am koo xam ne bëri bëri ngeen sax mais doo xamati exactement parce que des fois mbëri dañuy tudd nii ci ci ci ci bëri simple dem ci bëri dóor ñu ñu am beneen tour quoi xam nga li ma la mais peut-être mën nañu si ay quelques yoo xam ne xamante woon nañ wala boobu bi ñuy bëri ñoom ba ñoom commencé woon nañ bëri arène ku si mel ni tey jii nekk du fi Baye Ndiaye bu Lamsaar bëri nañ ay mbapat xam nga aussi DJ bëri nañ mbapat et tant d'autres quoi. Mmh. lutte avec frappe euh, mmh. def ñaata vingt combat laa def. vingt combat maa ngi def vingt combat. ñaata victoire. seize victoire. quatre défaites. waaw ñaan daal. kan moo ma daan Garga 2 Tyson 2. Ramadan ah ak Papine waaw moom daan moom daan bu doy waar sax. <laughs> mais Doomu Dangu palmarès bi macha allah 20 combats 16 victoires 4 mhm. défaites. Mhm. amaana am na ñoo xamante ni ay VIP lañ. Mhm. mais palmarès boobu amuñu ko. kon donc wax dëgg yàlla affaire bi laaj macha allah. sa premier combat yàkkal nga ak ñaata lañ fay. sama premier combat maa ngi ko bëree ak yaroo baax bu yoof moom laa ko bëreel quoi di nuyu au passage su ma nijaay Paala Meng moo ko tëggoon sax boobu boo xoolee ñun bi ñuy commencé dugg ci làmb bare mu làmb am na fu cachet bi débuté woon muy cent mille quoi et loolu la ñu fayoon aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu la mm-hmm. nga cent mille boo xoolee bëri dóor moom mënu si wa mënu si waajal dara. mën nañu wax ne su may mbokk liñ ci def ak ñun liñ ci def. raw na fuuf sax li ñu fay quoi mais boobu. cest à dañ doon dañ doon dañ doon investir pour ëllëg ñu jariñu quoi waaw mais liñ ci def moom ñu ko wax. waaw yàlla may ma ci ndam. sa deuxième combat. maa ngi ko bëree ak euh, Vandam bu rek énergie bi nekkoon rek énergie quoi te mu lekk léegi Kër Massar. moom laa bëreel aussi ma am ndam. Mhm. man bëre naa. bëri naa ñaata naa trois combats soo ko daanu ah. soo ko daanu waaw suma quatrième laa ñàkk. kan moo hmm. mbër man mbër dama ko judduwaale su ma su ma deret la nekk parce que surtout songaan géey rek jeexal na wax ji. Hmm. yaa ngi dégg la mais peut-être nit ki si loo nekk looy gën a dem rek di si gën a di si gën a mature hmm. li ñu bëgg yëpp amaguñ ko mais ñu ngi màgg ndànk ndànk daal ci làmb. mais ni di nga bëre sa benn ko di bëre combat ay mhm. combat nga ne ah combat nga am benn combat nga ci peese sa bopp lu muy laaj. tey jii fi ñoo ngi toog tey jii tey la ñaata ñoo ngi ci 2020 toog di def émission. amaana bu ñu demee ñu yàlla dimbalee ba toogaat fi 2025 dañuy gis ne màgguñu woon ci làmb est-ce que yaa ngi comprendre fi may waxee. am na combat yoo xam ne combat bu nekk am na combat yoo xam ne dafay laaj nga ñëw def li nga war a def amul calculer amul dara pour yàlla may la ndam am na combat yoo xam ne dafay laaj nga nga ñëw dal pour tey pour am ndam quoi mais man combat yi ma bëre yëpp suis comme ni ma ko waxee toujours damay lucide quoi samay combat hmm. Doomu Ndang lan moo dugaloon bi ma nekk mbër tegle nekk si ay série de victoire ñi ma war a jël jëluñu ma ma def benn année blanche anne balance moom mooy def noonu boo xoolee fin juillet Fallou Ndiaye oo ma proposé ma combat ma ne tey jii am naa opportunité bëri trois combats si benn saison te maa ngi jóge ci année blanche malgré ne ñooñu may dugg ci TNT bi nekkuñu samay potentiel adversaire mais dama waroon compétir pour nit ñi gën ma xam. damaa bañoon a waaw loolu kañ moom amul sax mbër boo xeewee rek amatoo valeur quoi. waaw moo tax man ba xam da ngaa bañoon xeew parce que ñu bari waaw loolu laa doon bañ mhm. que TNT bi dégg woon ñu ne koppar. Mhm. dégg woon ñu ne affaire du visa. Mhm. ndax parce que yaa ngi ko doon wax ndax am na ñoo xamante ni sax amaana doomu daan mën bokk ak ñoom mën nga ñëw rappelé wu yàgg na ko bokkoon Ramdaan ak man la Ramdaan soxu ak mobile. ak mobile waaw ñoo ko bokkoon. waaw mais no du du du xaalis quoi ñun fi ñu toll nii mënuñu fayeeku xaalis boo xam ne tey jii li ñuy fayeeku lu ñuy def si làmb ñun moo ko ëpp yaa ngi dégg li ma la mais nag làmb daf lay ubbil porte yu bari xam nga tey jii tey jii ñun mënuñu dem sans comme yéen aussi mënuñu dem mënoo leen dem sans ñun te des fois nit ñi boo amee komba lañ lay gën a bàyyi xel yaa ngi dégg li ma te man ba ba bu ma gisoon saison bii di jëm bi ñu jëm nii ñu ñaan corona bi gaaw jugee fi ba ñu reprendre suñu activité suñ ci suñ dem su ma gisoon beneen tournoi boo xam ne damay am opportunité bëri trois combats. Hmm. moo ma gënal may bëre benn combat. yow euh, bien sûr parce que imaginer ngay xëy di entraîner chaque jour am combat ñàkk am combat. Hmm. donc si ñu tegal la benn combat wala trois com wala wala trois combat ban nga war a jël. Ah, mais ça non loolu ay wax la rek amul benn mbër bu fi exceptionnel boo hmm. xam ne yow tu unique amu fi. koo fi gis am na ay morom. da nga naan nag kalaaf bi mu nekk ay say potentiel adversaire mhm. waaw loolu la ñuy wax quoi. nga dugg ci kalaaf bi am nga ci satisfaction. bu baax a baax sax. Mhm. parce que liñ doon si séntu yëpp suñu borom defal nañu ko ci. kenn yaaxaluma sama yoon. mais am na la ci daal. ubbil yoon bi. kan la ci. Ramdan. <laughs> ñu ngi mhm. am na ñu bari ñu tegoon ci yow. waa làmb noonu la làmb noonu la moom parce que ñaari nit moom bu ñu taxee di bëri rek ku si nekk di nga gis ku ku gën a dal sa xel pour nga miser si moom mais comme ni ma lay wax rek tournoi boobu ba ma siy dugg mhm. amul benn mbër bu ma ëppalee ci dara ci lenn cest si dire ci maanaam fànn yëpp man j'étais largement favori ci fànn yëpp parce que expérience bi man nekk bi nekkoon ci man nekkul woon ci ñoom kenn ëpp ma ci woon kàttan te ñi ma jot a bëreel kenn bëree ko ci te aussi kenn daaxuma ci woon bëri donc man maa nekkoon ak côté palmarès boo si ñëwee tamit dama leen rawoon lu bari si palmarès amaana sax wax ji looloo taxoon mu bëri quoi. Hmm. Ramdan tey ban erreur nga def. non dañoo bëri comme ni nga ko waxee rek xam nga erreur moom bu amul du doo doo doo ñàkk. Mhm. bëri nañ xam nga ma dóor ko sentir ne touché naa ko may dem aussi pour aboutir kombaa bi et par la suite cest à mu mu mu gaaw ñëwaat ci kombaa bi xam nga. ma song ko suuf mu faxat ma ma def quatre appuis quoi. mais door na ma benn coup boo xam ne moo yombal sax quatre appuis bi quoi mais su ma dóorul woon amaana su ma ko songee. Mm-hmm. même bu ma bu ma amul dara aussi du ma def quatre appuis quoi. Mm-hmm. ba nga jógee comme li ma la man damay am ay ay damay am ay problème mu am combat. Uh-huh. mooy su may potentiel adversaire duñ mu jël xam nga lan moo tax nag. yow ba nga jógee ci classe ba léegi yow. si bëri na mais boo xoolee ki ma bëreel. man boo xoolee fin saison laay bëri léegi c'est-à-dire da ngay toog di xaar li la gënal di la gënal ba saison bi des un mois non pas taamu xool li la gënal mooy tey ji say potentiel adversaire xam nga ça ne sert à rien nga jël combat boo xam ne dañ naan diw mooy favori. mais kat nga mujjee daal. farouge laa mujjee bëri. ok mooy combat boobu mais nag euh, doomu daango je suis désolé mais ba ngay jël farouge. Mhm. yaa gën a xam ne nag moom ñu bari. Mhm. bari bari dañ na lii du combat. Mhm. mais li tax nga jëloon farouge te amoon yeneen adversaire yu fi nekk. yeneen adversaire lan. seen adversaire mais fii sa am ah, man maa koy lim fi sa adversaire. non dama bi may bëreeg Farouz dëgg li ma xam ah, maa ngi naan man fin saison laay bëree léegi boo xoolee parce que maanaam da ngay toog di xaar li la gënal xam nga làmb moom danga nga naan ñii laa bëgg a mm-hmm. am ñoo xam ne làmb moo leen di boole am na ñoo xam ne ñoom ñooy bëgg bëreek bëreeg yow mais tey jii ñi nga xam ne man bëggoon naa bëreeg ñi bëggoon naa bëreeg ñoom. bëgguñu woon ñëw ci Farouz bi ba pare. laa lay expliqué nii ah. bëgguñu woon bëreeg man ñi nga xam ne sumay may potentiel adversaire lañ aussi pare ñëwoon pour bëre moom ma ma gis ne ma gis ne non ma gis ne aussi tey proposition bi fi am mooy feu ñoom moo ko proposé bu ma ko jëlul damay filer damay defar année balance te boobu aussi nekkoon naa si dynamique boo xam ne waru ma daggaat yoon bi ma ne pourquoi pas bu ma naree année blanche mais ma jël feu rouge bëre ak moom ma jël ko aussi compétitif bëre moom suñu borom aussi may ma ci ndam. non nekkul woon dëgg na ma nekkul woon bu difficile si man quoi wax dëgg yàlla. te man amul benn combat boo xam ne dafay nekk combat bu difficile. ba pare moom mhm. man xamoon naa ne feu rouge manuma woon ébranler ébranler si si dara manuma woon yëngal quoi parce que nekkuñu woon benn quoi wax dëgg yàlla. bi. mooy si bés bi man maa ko ni ma préparé combat bi moom préparé ko combat bi bi jël combat bi di ko signé maa ko gënoon pare. bi ñu jël combat bi quoi man maa ko gënoon pare si atu yëpp donc moom amuloon benn sens aussi pour daan ma xam nga kii pare boo ko laax kii di dabe. ok léegi nag après nga jógee ci Farouz ba tey mais à chaque fois dama nga jël. Mhm. doomu daangu fan boo xam mhm. mhm. mais sa diggante Gora Sock daf may problème bi doomu daangu. Gora sama gain la amul benn amul benn problème boo xam ne da am. seulement nag ñun ñee ngi wax nii rek mhm. mais gisaguñ si proposition boo xam ne war na mën a tax ñu jël ko mhm. loolu la rek ah te année bii passé nii moom nekkul année balance yu benn mbër parce que làmb moo amul xam nga dafa am tolof tolof yoo am yoo xam ne kenn deful année balance ah kenn deful année balance tolof tolof la ñi doon lii am nañu ñu bëri corona bi dafa yàq seen activité waaw. wax ah, mais góor a di mbër te amateurs yi nee nañ mooy suma potentiel adversaire donc buñ ma ko joxee dama koy jël pourquoi pas. Mhm. duggaat mais loolu day dara. moom gargaay xarit la. et après <laughs> loolu loolu du dara ci làmb yooyu ay ay la quoi dama làmb moom ku fi am sa kër nga yóbbu. Eh, loolu la euh, euh, nga baal ma rek. wax dëgg yàlla sujet bu moom moom ah nekkatul sujet boo xam ne man. non question réponse dama naa wax dëgg yàlla man dootuma si dootuma si aborder quoi. parce que ok rek wax mais dama laaj rek question loolu mënuma si tontu nag wax dëgg yàlla nga baal ma rek. non xam nga doomu daal laaj la ko. Mhm. non dama yaakaaroon ne yéen. comme yéen lébu yi. non xam nga lu tax ah, non non non non ah. cest boo waxee loolu des fois dama naan xanaa du suul la am man mii toog a xew ni bëri nax Tyson 2 yaa ngi dégg li ma la donc mais wax dëgg yàlla Quench man dama ko respecté comme aussi moom ni ma respecté ah. quoi te lébu la comme man mu dëkk bari ñu ma dëkk Tëngéej ah. peut être des fois mal compréhension dafay dafay am man dama jàpp ne man laa la wax cest à bu ñu waree bëri dañuy bëri ay après terewul li ñu seex dañ koy seex yaa ngi dégg wax mais aussi du ma si mën a prononcé wu parce que moo tax mhm. dafa am combat mu jëm si combat moom ak double moteur ah. xam nga li la et man en tant que lébu en tant que aussi moom mu dëkk Bargny ma dëkk Tëngéej manuma lu dul di ko ñaanal mu am ci mu am ci ndam waaw parce que man noonu laay fonctionner xam nga li ma la mais peut-être comme des fois dégg-dégg yi mën na bañ a bokk quoi mais wax dëgg yàlla man ñi ma jigéen ak ñi ko jigéen bëgguñu koom bi am quoi xam nga li ma la donc je préfère que man ma bañati waxati si loolu quoi xam nga li ma la wax te di ko ñaanal si li mu jëm mu nekk loo xam ne lu ko maanaam lu muy gis boppam la daal. Mm. Mm-hmm. parce que ñu bari dañ ma ko doon wax. Mm-hmm. ma noo Quench ak doomu daanu est-ce que parce que. Mm-hmm. dañoo bokk ay xarit. waaye doo bàyyi loolu loolu bàyyi bàyyi loolu mais moo tax nag ma la koy dafa am combat. Ah, dafa am combat bàyyil waxu Quench. waxuma loolu de waxuma dama bëgg nga déglu ma rek Quench dafa jógee ci dafa nekk ci combat. Hmm. dañ ko ñaanal combat bi mu am ci ndam. Hmm. xam nga sañ nga nag man je ah. dis double moteur aussi suma xarit la. Uh-huh. parce que li may waxtaan ak sax. maanaam duñ ko déggante ak Quench. kon sa ñaari xam nga deret dafa gën a foor aussi lépp loo mënti jis quoi. xam nga li ma la wax peut-être waaw. yee dañ koy ñaanal Quench yàlla may ko ndam ci li mu ci li mu jëm. Mm-hmm. Mm-hmm. sax. Mm-hmm. mu la jox ma Doomu Dangu. doomu daangu instant bi ñan ñooy say potentiel man mbër nga seeta mën a jox non mbër yi fi seet bari na wax wax ma kenn instant bi yow moom man très rare très rare je dis benn hmm. affaire très rare nga gis mbër mu may laaj non mbër mais mbër dañ lay tudd mais dañ lay tudd mais mbër bu lay laaj man mbër may laaj ci doon ma laaj ma am combat man dañ maa ñemewul lool rek la ñan eh, mbër eh, ñemewul li man ñan mbër xam nga man tey jii nañ wax dëgg rek soo defee vingt combat hmm. non macha allah wane wane wane say preuve est-ce que jaadootina sax ngay toog naan nañ ma jox diw nañ ma jox diw xam nga yow nitu laam nga xam nga combat yi nga xam ne moo nekk ay combat choc mm-hmm. te combat choc yooyu ngay wax nekkul benn comme sànq ni nga cité benn góor a choc mm-hmm. am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ay combat la mais wax dëgg yàlla dépassé naa yooyu yëpp ay déggoo li ma la wax <laughs> man di seet si déggoo li ma man fi ma toll xam nga ban lan laa lay wax mm-hmm. mooy képp kuñ ma seet si mu nekk un combat boo xam ne c'est un combat choc dama koy jël mais wax dëgg yàlla su ma naree bëre combat boo xam ne je pars largement favori wala man maanaam dañ naan lii du combat. je préfère man ma bañ ko jël quoi. wax yàlla kon bu fekkee booy seen chance. booy man may booy <laughs> ñoom mayaat booy kan ba ji. booy nekk ci suuf ñan. ay comme ay ñoom caat. non ñooñu ñi nga xam ne dañ nekk ci combat wax dëgg yàlla ñoo ñoo ma bëre yow ñi nga xam ne ñoo ma njëkk a ñoom caat waaw yow non moo jë ñu bërendoo mais caat moo ma a bëre quoi. waa bëri na grand combat de. moom moo ma njëkk a bëre laa ci làmb sax. parce que bi muy bëre ay arènes ñu ngi toog di ko fàttaliku boobu bëreeguñu. pour yooyu ñu suivre sur Wassare Lamb ah, tey ñu dara nga xamante ne moom mooy Doomu Dangu boo xamante ni ku am seize victoires quatre défaites kon jaar jël ko parce que tamit day neexal làmb day ay supporters ba nekk na mbër boo xamante ne bu am jom macha allah mm-hmm. euh, Doomu Dangu euh, beneen bi mooy instant bi gis nga fi làmb tool. Mm-hmm. làmb na mhm. ah, làmb moom comme ni ñu koy waxee rek ñooñu ñëpp làmb cest à nit dugg ci nii nii nii nii rek làmb la plupart ñi ciy dugg nattu la mën nañu wax bàyyi nañ nii nii kërëb kërëb mais dañu li la ciy sax doo ko doo xam xam nga li ma la wax. Mhm. dañuy saluer retour bi nga xam ne moom la defaat. aussi tëgg ay combat xaw ma combat yi c'est officiel ou pas mais dañ koy man damay lancer benn message rek que promoteur yi some bi ñuy jël di ko di ko tëgg ci ay benn combat wala ñaari combat amateurs yi li ñu soxla mooy ay gala mooy ñu gis benn doomu dàng wàcc bëre trois fois ci benn saison wàcc gis benn Garga wala benn Moussa Ndoye wala benn Modou Anta wala benn benn Yékini Junior wala benn Ama Neex loolu la soxla te combat yi ñëpp xam nañ ne méttiwul làmb pour man bu ñu koy dundal cest à nañu jël ñi nga xam ne mooy noyau bi ñu tëgg ay gala xam nga di si interpeller promoteur yëpp xam nga di interpeller promoteur yëpp daal ñu ñëw tëgg làmb aussi di rafetlu xam nga euh, Luc Nicolaï mi nga xam ne dañ ko gracier barki Demba Ndiaye di ko invité waat rek aussi mu continuer liggéeyam quoi. mais yow xam nga sàmbale yaa ngi naan ay gala gala gala. Mhm. mais tey bu ñu la defoon ci gala boole la ak ñoom góor a soog. Mhm. mu xool euh, nu mu tudd yow yaa may kii nag. Mhm. tey bu ñu la bu ñu la doon kenn du ma lim kenn. ne góor a soog ak kat. non ñëpp ay potentiel adversaire rek. yaa ngi yow daal limal rek. man du ma lim non benn lim naa benn doo lim benn ak kan. <laughs> yow góor a soog ak kan. Moussa Ndoye. lan. waaw. Ah. Moussa Ndoye men bu yarax. waaw. sama seize moom am na du ma ko tudd parce que doo doo doo parce que. du ma ko tudd mhm. mhm. mooy lan. mais des ko si xaajal nga dugal ko ci. comme kat man moom keneen ku nekkaat sa xel. benn moo xoon tudd naa benn am na keneen ku nekkaat sa xel. benn nga moo naa benn. Ah, yow moo man ah, kon garaawul. <laughs> mais euh. ñooñu ñëpp bu ñu leen ci benn gala. pare ah. nga pour bëre ak ñoom simmee ko pre yii ko ñëw di nga financé ba sonn. lan laay financé. mais ñooñu du ñu mbër noonu kese. waaye fii ay mbër kese rek a fi am dafa am leneen lu dul mbër kese. c'est-à-dire yooyu lañ namm man dama namm bëre ay trois combats par saison xam nga li ma la man loolu laa namm quoi. mais Moussa Ndoye diis na mbër man dara daa diis si man. ba est-ce que nekkul li def garga moom moo tax. li mu def li ko garga def. moo tax moom moo tax nga yaakaar ne comme ni ko garga def. nga yaakaar moom xam nga lan moo fi am. Mhm. da ngay def ñii dara ñii def la dara loolu rek a fi am quoi man basé wu ma ci loolu Moussa bi mu nekkee ci am gu victoire mhm. man dama bëggoon bëre ak moom parce que gis naa ne mbër la aussi te jàmbaar la donc du tey dafay dafa am benn combat bu mu ñàkk wàññi lu ko dara xam nga li ma la wax mhm. mais combat la boo xam ne aussi. combat la boo xam ne aussi amateurs yi soxla nañ ko quoi. Mm-hmm. noo gisee Balla Gaye Gris Bordeaux njëkkoon nañoo bëri. waaw ah. après ñu tëggaat combat bi combat boobu noo ko gisee. ba ah. am na favori. non combat moom bu taxee favori moom dafay am. non xaw ma kuy wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Ah, mais am na favori quoi. Mm-hmm. xaw ma kuy favori Balla Gaye Gris Bordeaux combat dañ bëri woon. Uh-huh. par décision. arbitral dañ jox Balla victoire. Mhm. yaa ngi dégg ma dañu war a bërewaat kañ yàlla na kenn daan moroomam rek mu leer. Mhm. Mhm. boo ñaata Tafatine. combat aussi combat la combat la mu neex combat Tafatine ak Boy Niang. am na ku ma si faral nag. man ko. <laughs> am na ku ma si faral te sama xarit la. Ah, waaw xam naa ah, am na ku ma si faral sama xarit la. ki may waxal xam na boppam. Ah, am na ku ma si faral. sama xol. te sama xarit la. te moom bu seetaanee lii dina xam ne xam na moom laay waxal. man de xam naa ki ngay wax. mais ah a ko xamee nga wax man de waxuma. <laughs> <laughs> ñoom ñaar daal am na koo ci faral te sa xarit la. waaw. Mm-hmm. Modou Lo Ama Baldé combat boobu nan nga ko gisee. ndax depuis daaw ñu doon wax mu tax fii lig Nicolas instant bi xam nga ñëwaat na mais combat boobu. waaw dañuy ñaan comme li ñuy wax rek li ñuy ñaan instant bi xam nga lan moo njëkkee mooy li nga xam ne moo téye làmba ji muy corona bi mu gaaw génn ci àdduna yëpp mm. ba ñu mën a reprendre suñu suñuy activité ñëpp mm-hmm. Modou Lo Ama Baldé combat la mm-hmm. parce que boobu mooy combat royal bi mm-hmm. donc xam nga Omar Dieng xam nga comme ni ñu koy waxee rek combat kom comme yeneen combat yi comme Balla Gaye Gris Bordeaux comme Tapha Tine xam nga dañuy bëre ñi war a am am ndam ki war a ñàkk ñàkk mais daal ñu ngi si xaar mu nekk combat bu combat bu neex daal. Mhm. Bombardier da euh, déwén incha allah. Mhm. day am 45 ans. Mhm. mu nekk loo xamante ni ña wax dëgg yàlla ñu ne sport fii seen fii rek ngay gisee ni que ni mbër day am at bii ñu kii ndax loolu amul te Bombardier wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni day neexal làmb boo yëpp ko bëgg ñëpp ko naw. ci kàddoom ci léppam loolu nan nga koy kii. non ci làmb nag dafa war a am nag parce que làmb sport bu. bu bu bu violent la quoi am na âge boo xam ne moom boo ci duggee et obligatoire dañu war a dañu war a peut-être dañuy ñaan pour ñu yokk xam nga c'est pas ndax dinañ ko def wala duñ ko def mais pour man à l'âge de dix-huit ans nga nekk ci benn benn benn métier di ko exercer ba quarante-cinq pour man doy na quoi man na quoi mais nag des fois xam nga binde yi ñoo dul bokk am na ñun ñoo xam ne maanaam dañoo gaaw màgget am na ñun ñoo xam ne gaaw ñu màgget tey jii dañuy xool comme Balla bii rek. bi muy bi muy bi muy retraite ñëpp doon nañ ko ñaanal pour mu pour mu pour mu pour mu arrêter quoi pour mu continuer xam nga mais nag CNG moom mooy CNG waaw ñoom ñu ngi xaati kuy arrêter kuy continuer waaw mais ñu ngi ñaanal comme ni ñu koy waxee rek Bombardier tamit encore moom jeune la te ñëpp gis nañ ne macha allah donc dañuy interpellé waat CNG aussi suñu mënee xalaat si âge bi rek ñu xalaataat si daal. différence. fan si différence bu rëy bu rëy rëy rëy sax yow làmb làmb 2000 li ko jàppee làmb 2013 ba 2015. boobu loolu làmb boobu beneen affaire la woon quoi ni mu doon doxee. no bi boobu moo ëppoon cest à ay promoteurs yu ëppoon crédibilité xam nga. Mhm. boobu moo ëppoon aussi. maanaam engouement bi xam nga des fois dara day am mais dafay am benn aura bi dafay jékki-jékki rek euh, dafay jékki-jékki wàcc quoi làmb ni mu doon doxee maanaam allure bu mu amoon noonu su ko continué woon ba heure kon kon kon kenn waxatu ko wax dëgg yàlla. non bu baax dafa wàññeeku loolu ñëpp xam nañ ko quoi parce que yow boo xoolee deux saisons yi dem nga ba da ngay toog un mois doo gis làmb problème wala tey jii combat yi ngay xaar doo ko am. xam nga li ma la donc te làmb ay grand combat nga daan gis. ci si ci par dimanche wala samedi parce que làmb bul fàtte ne demoon na bay tëgg mercredi mais bu demee ba léegi dimanche yi tëgg làmb di am problème mooy wan ne problème am na. sa ban euh, sa moo ma gën a neex ci combat yi ci ci amagum quoi. combat ban combat nañu wax ne bon ma toll nii moom maax maax soxu moo ma gën a gum neex ko ndax boobu jóge naa ci Ramadaan ñi naan man naka wala manu ko te boobu su ma jumul soxu kenn tëralugu ko ba mu tëdd si suuf ñi naan est-ce que mën na ci génne wala mënuñ ci génne mais boobu ma xam li ma xam rek xam nga mbër moom saa boo jógee si defet rek les gens dañuy commencé douter wu ci yow boobu ma xam ne li nekk ci man nekkul ci ñoom ma ñëw si aussi def ci combat bu méttee métti métti suñu borom may ma ci ndam waaw c'est par si défaite bi ma jugee ñëw si combat boo xam ne dafa nekk combat choc combat waaw kañ tey mu dee xam nga ma ñëw aussi def si wane si fulla fayda jom suñu boroom may ma si ndam si loolu rek la ma neexee quoi mais c'est pas parce que adversaire bi la quoi. sabat défaite moo la gën boo xam ko fàttaliwoo tamit soxal du ñaari défaite quoi am na yoo xam ne métti na ma cest à warul woon. Euh, benn bi sax je peux dire que ne ma euh, Pape Tine waruma woon daan quoi. waruma woon non c'est-à-dire da nekkul suma adversaire xam nga des fois nga jël lamb comme ni nga wax nii dafa mel ni mu jëloon fëru fëru daan Pape bi ma ko jël maa ko mënoon fuuf mais mu daan ma quoi defet bu ma metti la parce que waruma woon daan beneen bi mooy suma ko combat Tyson 2 dama ci entraîné woon ba pare am stratégie bu ma si teg ñëw bëréew ma xeexuma defuma dara daal ñàkk combat bi. déedéet jàpp ñu ma woon musulman de non c'est-à-dire loolu dafay am ci làmb xam nga li ma mais je man bokk bokkuma ci mbër yi nga xam ne dañuy ñàkk combat naan mystiquement wala lii suñu borom moo ma tiim masuma bëri sentir ne jàpp nañ ma mystiquement wax dëgg yàlla waaw billaahi ñi may ngemb bokk ñi nga xam ne ñooy sumay staff ñoom man du am combat seeti sëriñ man am personne wallaahi azim samay mag ak su may xarit lool lool yàlla xam ne ni ñooy gérer lépp mais lépp lu ñu ma wax ne ma lii def ko c'est-à-dire dinaa ko def mais wallaahi azim bëri na làmb yu may bëri damay dem ba si géew ba biteel yi bari man na leen wàññi wàññi leen ko parce que man looloo tax sax maanaam damay favoriser samay entraînement de trop moo tax li may bàyyi xel loolu du bëri. Hmm. Hmm. mais nekk na loo xam ne respecté nañ képp ku ñuy ñaanal et lépp loo ñu wax pour ñu def ko dañ koy def hmm. mais daal li ma gëm mooy làmb li si njëkk mooy entraîné ba pare. kon daal non damay ñaanlu comme ni mbër yëpp di ñaanloo mais li may ñaanloo aussi noonu laay entraîné. Mm-hmm. à part euh, seen waa xaritu mbër nga am. yan xaritu mbër. Uh-huh. man làmba ji ñëpp su may xarit lañ ñëpp ay am di jàmm lañ ceex nañ preuve rek dëj bi da koy wane. Uh-huh. dëju bi nga xam ne moom la ñu am barki Demba Ndiaye. amaana ñu bari du ñu xam xamuñu exactement kan mooy frère Papa Yada. Uh-huh. te jii amaana ñun ñooy ay frère am monde làmb ñun lañ xam man mën naa wax ne mbër mu ñëwul rek oo nga ma jaale ma quoi mhm. donc ñëpp sumay xarit lañ. Mhm. Euh, liñ dese woon ci waxtu kii na parce que instant bi nii mi xaw a guddi ndax wax mhm. dëgg yàlla yow moom suñu waay nga suñu lépp nga mais bañ fi bañ ba ma fiy soog a fi doon ñëw dama laa waxoon mariage quand <laughs> am nga gel wala am yow doo bàyyi si question yooyu nga ah. waaw am naa gel léegi. Ah, xam nga ah, am ba ñëpp am am ñu <laughs> am naa gel. am naa gel. léegi bu jotee rek yomb incha allah. mais daal soreetul. bëgg nañ ko mais bu jotee yomb quoi hmm. waaw. ñaata ñaar wala ñett. ñaari gel nga am wala ñett. man benn jabar laay am sax naan man ay ñaari gel. Ah, kon benn gel laa am maa ngi nii toog si écran di ko wax benn gel am. Eh. waaw <laughs> yaakaar naa ne leer benn gel benn jabar laay ah, bu baax a baax dañ koy jox moom ñu tàggatoo après ñu tàggoo ñu tàggatoo ba lan mooy sa li nga xam ne moom la am muy tiis. bu méttee métti bu dal suñu kaw bu dal si monde làmb muy suñu rakk bi nga xam ne moo ngi wàññeeku ñu ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fii. ñaanal waajuram mu yàgg fi lool te parce que man suma xarit la di remercier monde làmb mais damay wax rek lenn rek aussi pour man dese Papa Yade bi bépp mbër war nga si war nga si am na am loo si jàng. Mhm. parce que parce que waaw parce que bi biñ leen di denc. maanaam gis nga monde boo xam ne tey jii man mën naa wax ne mësuma ko gis si si maanaam ci nit ku gaañu. donc loolu dafay am lu muy wane rek dafay wane ne nit ki loo nekk rek jox ko valeur et nga gën a respecté nit ñi parce que tey jii ñu bëri xamuñu woon Papa Yada mais ginnaaw bi mu laaxoo la ko ñu bëri soog a xam donc nit ki loo mënti nekk rek bul ko xeeb jox ko fulla et aussi respecté doomu aadama yëpp xam nga parce que ëllëg du añ du reer mais lu mat a sóor la parce que fii Papa Yada mu euh, dem nii ñu ngi koy ñaanalaat mu gënal ko fi mu jógee mais demal maa ngi ñëw rek la yàlla na yéex na mhm. mais daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di ko bëggeewaat bu baax a baax suñu doomu daangu yéen yéen ñu ko tànna yéen a ñu ko tànnal nañu dem leen dem doomu daangu moo tax tey ñu amat contentement ñu dalal ko parce que moom suñu xarit la suñu lépp la mu nekk koo xam ne daf ñu di ko ñaanal jàmm di ko wax ñu xam lu mu bëgg ci laara daal naqawaat dafa ci bàcc Seydina Muhammad di leen bëggeewaat bu baax a baax yéen ñi xamante ni yéen yéen ñu dooleel ndax nee naa leen dooley jën ndox ñu yéen yéene suñu lépp parce que tamit gis nañ lépp du tàyyi di ko wax parce que tamit xam nga yéen da ngeen siy jàpp bu baax a baax mais nag nee naa leen ñun ak yéen commencé bu ñu dañuy fo rek ngi leen di bëggewaat bu baax a baax di ko bëgge bu baax a baax moom Kara Fashion mu nekk koo xam suñu mag la suñu yëpp day jàpp ci combat bu baax a baax wax dëgg yàlla lu rafet lu nekk dañ koy jox pour ñu sol di ko ñaanal yal na jàmm ñu yàgg suñu yaay boobu noonu Adama di a baax nekk wax dëgg yàlla suñu cameraman bu baax bu disponible di ko ñaanal moom it na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko réussite lépp yokk ci barke Seydina Muhammad di leen wax rek ah doomu daangu la woon tey tamit dañuy seetiwaat ñeneen rek ndax ñu waaye ñu koy topp comme que nag dañuy kiiwa rek bien vrai que ni confinement mais mën naa jàpp ne dañuy confiné wu ndax xam naa ni heure boo leen ñëwee da nga dikk yëpp rek di xool ñan lañ am ngeen jégawaat nag bu baax a baax ngeen jox dig daje ba beneen émission incha allah jaajëf merci beaucoup